mbokk yi safoo Kourantian TV asalaamaaleykum bisimila ci xibaar yi ci tënk Aminata Touré tekki nañu nombal tànkam ca pencum ndaw réew mi niki démb nag ci talaata ji ñaar fukki fan ak ñeent ci weerub janvier ginnaaw ba parti ba mu bokkoon di APR daadee saisir bureau assemblée nationale ba ñooñee gaaw nag amal ab vote ca noonee fukki député ànd ngir ñu dàq Aminata Touré juróom benn képp nag ñoo ne déet waaye teewul dogal biy jógee ci alliance pour la république jàll na dàq nañu ko ca assemblée nationale Aminata Touré daal na xam nga ne lii yépp réew mi Macky Sall moo ne ca ginnaaw tax na li des moom mii mi nee na dina def kémpulaay kàttanam ba ñetteelu mandat bi Macky Sall bëgg ci réew mi du fi amee ñu àddu jëm ci transporteur yi bankoon seen ay loxo ci ayu bés yi ñi ngi nag teg nañ ci suuf lépp luy grève ginnaaw ba ñu waxtaanee ki démb ak Serigne Mountakha Mbacké di xalif général des Mourides ca Porokhane Serigne bi daan naa dalal seen xel Alassane Ndoye ak Gora Khouma jiite woon délégation transporteur yi daal di leen xamal ne dina waxtaan ak njiit yi ngànk wàllum transport ci réew mi bëgg ñoom dawalkat yi mu daal di am ñu wéy xibaar yi jëm ci wàllum yoon jëwriñ bi ñu denk biir réew di Antoine Félix Diome daal naa xam nga ne fekki bés dina yokk ci police nationale lu toog ci ñeenti junni ci ay agent loolee ngir gën a yokk kaaraangi réew mi yëge kàddu jóg ca cérémonie bu ñu doon sargalee ñeent fukk ak juróom benni promo bu école police mbokk yi fi la ñu yem ak yéen ci tënkum xibaar yi jàngeen jëf